Megeranu, Basiru, Jomai, Jagar, President Usman Sogo, President Usman Sogo. になるおーすごいプレジダンウスマンソンゴー Usui, President Usman Sonko, Presidente. Bassirou Diomaye Diakhar Faye Ousmane Diomaye moo ngi noonu moo ngi noonu président Ousmane Sogo ng Manala. Exceptional. Exceptional. Exceptional. President Usman Sonko. President Basiru. sui, não. Usui! Usui! Usui! Bulandri Jalo! Accueille! Triomphalement le président Ousmane Sonko Menginanu, Menginanu, President Basiru Jamai President Usman Sonko, Usuidiri, your President, Sonko mi ngi ñëw usuy di wi usuy ala mi ngi noonu merci beaucoup usuy jërë ngeen jëf le président Ousmane Sonko maa koy bëggee le président Ousmane Sonko, le président Basirou Jomai Djakhar Faye, où se déroule le tapis rouge dans la pénombre. 15-16, les populations sont sorties nombreuses à accueillir ce tandem, ce duo, ce binôme qui symbolise l'espoir du peuple africain, l'espoir du peuple sénégalais, le président Ousmane Sonko, le président Bassirou Diomaye Diakhar complicité Quelle complicité Le président Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye, ils sont tout le temps en train de murmurer des choses. Ils s'activent, ils rigolent, ils se confient. Ils sont exceptionnels. Vô mày Vô mày vai Vô mày Menino président Bassirou Diomaye Diakhar Faye Oussouye Diwi Oussouye Diwi le binôme de l'espoir ñaari doomu ndayi Bassirou Diomaye Bassirou bu Sonko Basiru punya kenyau. Usui Usman Landri Jalo. Presiden Kontana, Presiden Kontana, Mainan Koser. Mainan Koser Usui. Mainan Koser Usui. Jonan Koteranga. Basiru Leru Adejola. Baziru, le roi des Jola. Baziru, Boussonko. Baziru, Bou Sénégal. Basirou, Boussoui. Sankoye. Sangoye, Sangoye, Exceptionnel. Exceptionnel. C'est inédit. C'est historique le grand rendez-vous de la victoire, le rendez-vous du Sénégal et de ses deux fils, ses deux fils dignes, Bassirou Jamaï, président Ousmane Sonko. Exceptionnel, exceptionnel, exceptionnel, on accélère Ousoui, أنا شلر خلي أني داو خلي أني داو مني نانو مني نانو أي سبب سبب mooy wàcc mi ngi noonu président il faut que ñu accéléré usuy neer na loolu waaye bii ñoo na mi ngi xaar bii ñoo na mi ngi xaar Bignona mi ngi xaar il faut que ñu def ko fast track moom laay jëli mi ngi noonu exceptionnel nii la campagne baa ngi soog a démarré poussel poussel poussel sama baat bi wér guys aja guys mu ngi noonu sorti très rapidement de Oussouye parce qu'il y a Bignona Molombe et Ziguinchor Goudomp aussi qui attendent donc dinañ ñëwaat léegi ak beneen live ngeen xam ne Sonko gars ngeen do len live ngi on se donne rendez-vous au prochain à la prochaine commune ou bien au prochain village Hein? tey 2h du matin c'est la soirée de la Casamance on se donne rendez-vous tout à l'heure inchallah